Anyways.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 Lo ndaw si mu ngi wuyoo ci turu Kaasar ab sëriñu tari yàq buy wuyoo ci turu Abaaji moo fa jaar daa di koy escroquer Kaasar dafa am doomam bu tàggo xelam mu ñëw ci sëriñu tari yàq bi di wuyoo ci turu Abaaji dëkk ca Wakaam ngir mu saafaral ko doomam jooju am tawat sëriñ bi laaj ko juróom-ñaari million pour jënd ab nag ak ñetti téeméeri naat haplow teg ci ay tisi ab ceenu or ak ay jaaro or waay kii xam nga ne ab diriyanke la koy jox waay ndaw si di kaasaar nag bi ko ko joxe ba noppi sëriñ bi tungaan juróom-ñaari millions yi la def ay waay samba Sénégal nag léegi dafa neex da gis koo xam ne day songo àdduna mu tar rek mu jaar ci prox ndoll yoon bu yomb bi xëy daal di wut kaalam gu yar sikkim leewali bët dajale ay sungu fa ki béggeen ut ay quelque suqam kaalawu ne ne sëriñ la dëkkee arnaqué doomu adama yi ñeme yàlla nag ba maare dee taali dëgër fit la ñu def laa la wax mën a faj lu ne nag ni ba du mën lépp réew mi nag sëriñu tariyax yu bari ay arnaqueur la ñu ñu ngi tëddee jabaru jàmbur yi di wuyole njagamaar yu jigéen yi xeetu tojangeeg ñaawteef bu ne sëriñu tariyax yaa koy def moo tax ma ne secteur bi ñuy tuddee secteuru sëriñu tariyax war nañ koo légaliser réew moo xam ne ku jóg kaalawu rek nekk sëriñ doon ab sëriñ banne loo ko wax mu ne la mën na ko faj kàcc rek waaye kaasaar waa ji arnaqué ndax waa ji di wuyoo ci turu M Cissé moom it sëriñu tariyax bi di wuyoo ci turu Aba ji escroqué na ko nettu ngaañ juróom benn fukki junneem pëti law M Cissé nag daf ko indiloon as corom soo xam ne feebaru rab la amoon waa ji daal di koy laaj xaalis ba noppi defalu ko tus ay waay man mbaa du ma nekk sëriñu tariyax li yomb na de <laughs> rek ay mi ay wolof njaay nag moo ko wax nee na koy reeree ko añee bés danañ ñëw nga fande abaaji yoon mujj na ko teg loxo waaye xamoon nga ne doo ci waay ba atte ko daan ko lu toll ci benn atu kaso boo xam ne juróom benn weer yi lay tëdd waaw góore waay daanoo ci lu ñuy wax association de malfaiteurs ak charlatanisme waaye ma ne dem leen liggéey te bàyyi ñi ngeen di arnaqué moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a garaaw corona la wax kii tamit beneen kaamara bu la waaye cay mim réew dañoo bëgg sëriñ nag ma ne kii ab étudiant Sall nekk fële ca université Cheikh Anta Diop di wuyoo ci turu Esdia ab waay buy wuyoo ci turu Asise moo ko gëmloo ne ci famille ñaari yonent la bàyyee ko surtout yonent yàlla Yaxuba la ak yonent yàlla Ibrahima pop pop pop waaye mi nga fi dégg waay ci noonu la assise ne étudiant bii di SDIA na ko jox ñaari million mu defal ko ay sangat yoo xam ni bis bu ko sangoo koppar yu bari lay am hop low ma sëriñ bi yemu si teg ci gëmloo ne étudiant bi da nga am jëkkëru rab na ko ci tegal lu toll ci téeméeri ju nekk ñeent fukk mu dindil ko faru rabam boobu ci la étudiant bi demee def pré waa ji di assise dimbu boo ne sëtu yonent yàlla yàqubal ak yonent ibrahima dal di koy arnaqué net tuŋaañ xaalisam <laughs> waaye da ngeen a yomb nag moo tax lu ne di leen dal waaye yëf yi mujjul yombee noonu dee ndax étudiant bi ak sëriñ bi tribunal la ñu mujjee ba tribunal mujj atte sëriñ bi dal di koy daan lu toll ci ñetti weeru kaso <laughs> waaw góore ti waay ala man ko lu toll ci ñaari million téeméeri junni yu mu war a fay étudiant bi <laughs> waaw góore waay moo tax ma ne jàngoro dal réew mi moo gën a graw corona la wax la xew ca Louga romb na doy waar ab jigéen lañu gis ci ab foos ñu fat ko ba pare daal ko cay sànni ndaw si mu ngi wuyoo ci turu Xadi Bajaan Jaak néewam la fekk ci ab fos bu parewul bu nekk ci ay tabax yu yàqu kay mbir mi mi ngi xew lundi 17 mai bi weesu ca ngoon ndaw soosu nag ñu gis neewam at yi mu ngi toll ci ñaar fukk ak juróom ñu fekk ko ci fekkin bu doy waar waay ñu faat ko ba noppi takk ko saañ gémmiñ gi band bët yi ba noppi dal di koy sànni ci foos <laughs> waaye ki def ya bon waay waaye nag enquête bi am yu mu tàmbalee leeral de ndax ki ñu njort ne moo faat ndaw si ba noppi sànni ko ci foos du kenn ku dul faram bii di wuyoo ci turu M Thiam dëkk ca quartier Medina Salaam <laughs> waaye waaye waay waay xaw ma lan moo xew ci réew mi <laughs> waaye réew mi li fi xew doy na waar réew moo xam ne dañuy faat ay nit faat ay nit moom daal da ngay jóge ak fenn ñëw ñu agressé la jam la nga dee moom daal dañuy faat bakkan nu mu leen neexee waaye bu doon ko faat ñu jàpp la faat la ma ne léegi faat jeex faat moom faat dong ko fii jëlee mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje samedi ci yeneen xibaaru buzz